asalaamaaleykum Cheikh Diop Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax soxna Naata di nuyu sama naataango yu ma la plateau bi nuyu également mbokk téléspectateur yu télévision Futurs Médias. nelaw nga bu baax yeewu nga bu baax. ayca ñu dooree ko ak l'observateur <laughs> ñu dooree ko ak l'observateur bi ñëwaat eh, ci li nga xam ne nag eh, moom moo di eh, mbirum kilee nga xam ne day yëngu ci wàllu wér gu yaram autopsie yi nga xam ne nag daal nañ koy lëñ bët ginnaaw itam mu génnee àddina faat ñetti ci ay doomam ba nuppi moom itamit daal di xaru muy docteur Falla Paye lañ du ñàkk daañu gën a lañ bët li nga xam ne moom moo di autopsie bi ci weneen jotaay bi samp samp nañ itam aw laaj ci li nga xam ne nag moom moo di ëllëgu ki nga xam ne nag moom moo di euh, Malick Gakou diwaan bu waaye mu ñeel làng ko politique bi caane daan jour ji ak itam ki nga xam ne moom moo di Pala Mbeng xam nga ne coow amoon na seen diggante mu jëm ci seen wàllu euh, sëy ba ñu yóbbu ko woon fa nga xam ne nag euh, moom moo di fa mbaxane doone benn muy ñëwaat ci mbirum Barthélémy Dias xam nga ne ni ki tey yem ko fukki fan la ñu ko daal di woolu ca tribunal bu Ndakaaru mi ngi wax ci wàllu lëndëmal xel wala boo ko xupp ñu àddu ci leneen assemblée nationale yaa ngi koy gis noonu nag daañ ci ñëwaat euh, Yewwi Askan Wi ak itam procès bu mi Dias ku moywul sono naata ni ki tey jile dina tàng lool ñu bëri ci askan wi itam ñu ngi koy euh, bañ dikkaat na itam ci grève bi nga xam ne nag boulanger yi door nañ ko démb ba tax euh, gox yu bëri mu mel ni ñàkk mburu mi donc ñàkkoon nafa mu mel ni itam grève boobee daañ ko wëyal xam nga ne àpp nañ ko ci duurug ñetti fan mu mel ni dina dem ba ëllëg ñenn ci ay nit fa nga xam ne na moom moo di ci aéroport international bu Blaise jaañ moom moomee daal nañ koy teg yoxo tribune euh, dikkaat itam di upp askan wi di rekk wax ne que ne euh, ñu def ndànk dal ndànk itam euh, ci woolu wi nga xam ne nak woolu nañ ko ki nga xam ne moom moo di Barthélemy Diaz kii itam ñëwaat na ci li nga xam ne moom moo di ndaw yi faral di samp seen ay ndënd ci li nga xam ne moom moo di gox-goxaan yi ngir rek jongante yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ci atum 2022 ñëwaat ba tey ci wàllu yeewi askan wi waxaat ci mburu wi nga xam ne nag ñàkk na euh, démb ba tax ñu bëri ci njaayeen yi euh, daanaka ndekkeewuñu li nga xam ne nag euh, moom moo di mburu wutali ci fonde yeeg ak itam li nga xam ne moom moo di bañe yi tension mu mel ni euh, xew naa xew naa xew naa am jafe-jafe. waaw ñu delluwaat ñu delluwaat. <laughs> ñu ngi euh, ñu ngi euh, nekkoon fii donc ci le quotidien le quotidien di wax ni rek mbirum Barthélémy Dias bi ku moywul mënees na tàng jër ni ki tey jii fii léegi nga xam ne nag moom moo di ci Ndakaaru àddu woon naa ci ci ki nga xam ne nag moom moo doon jàllale nit ñi fa nga xam ne moom moo di ci aéroport international bu Blaise Diagne. Mhm. yu xëy itam ki nga xam ne euh, moom moo doon amal jàllale yi ak yeneen yu ni euh, euh, xeetoo ñii la taxaw temm ngir dal di teg seen bakken mu mel ni waa yeewi askan wi dafa mel ni naata foofu moo am ay jafe-jafe fichier bi moo am jafe-jafe bi ngi noonu léegi <laughs> rek koy tëb léegi kon voilà le témoin mi ngi noonu voilà de de tous les dangers ñu ko bindee en danger rouge moom amaana fu mu am na yeneen yoo xamante ni mënees na cee am Barthélémy Diaz xam nga ngeen ne eh, jaro bi mujjee def ak way taskatu eh, xibaar yi eh, mu ngi doon artu askan wi ñu fees del fa nga xam ne nag moom moo di ca tribunal bu Dakar député yi la di Biaye ak itam sàll xam nga ne tuumaal nañu leen joxoñ leen baaraamu tuuma ci lu ñeel wàllu passeport diplomatique yi moo mel ne nag seen baaraan kiiraay daal nañ koy dindi ni ki démb le soleil yéen kaay ñëwaat itam ci li nga xam ne ñi nga xam ne nag ay dañoo xaañ lool di ñaar ci ay euh, ndong yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi njiit bu réew bu Sénégal daal di taxaw ci li nga xam ne nag moom moo di euh, seen ak digg ñëwaat ba tey ci ki nga xam ne nag moom moo di moom Biaye Mamadou euh, Sall jamono yi nag daal nañ leen di jébbal yoon yoon a ci des ngi rek mu daal di def li nga xam ne nag moom moo di liggéeyam sono naata yéen kaay bu groupe Futur Média di wax ci ki nga xam ne moom moo di euh, Bouna Sarr euh, ci ki nga li nga xam ne nag moom moo di euh, taxawaayam muy wane rek ne amul benn jafe-jafe woo xamante ni nag ci yile jamono mi ngi koy wëyaale daañ ko gën a càmbar wax itam ci ca Sadio Mané saar ak itam Habib jamono yi nag taxaw tem ngir daal di ci dolli ñeex bu baax a baax mm-hmm. Euh, sunu làmb dikkaat ci ki nga xam ne moom moo di euh, Bombardier ak itam Balla Gaye 2 kan moo ci war a mën a tënk moroomam euh, boo xoolee suñu naataango wala toog moom Malick Thiandoum mi ngi ci wax àddu rekk ne ku wax ne ki nga xam ne moom moo di Bombardier jeexal na jamono yi nag yaa ngi ci. bëccëg wala guddi bu bëccëg seddagul wala. maa yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci njuumte yaa ngi <laughs> solo naata mu mel ni lii moo fi gënoon a fës après daañu ñëwaat doon koo càmbar incha allah ci kanam tuuti lay doon Cheikh Diop di ko sant di ko gërëm euh, Chérif Dia dañuy euh, taxaw ci euh, benn ci benn journal wala boog ci benn actualité muy li nga xamante ni moo di procès en appel bu Barthélémy Diaz ak tey jii ni mu woowee ba jafe-jafe yi dikkati na mi ngi noonu dañuy dem ci journal yi nga xamante ni wala boog journaux yi nga xam ne ñoom ñoo ci xëyee tey jile Barthélémy Diaz tey jile <laughs> en appel euh, procès en appel voilà bu Barthélémy Dias bi tey la Chérif mais gis nañ ni tamit mi ngi woote ne askan wi euh, bu ñu nangu loolu ndax mën nañoo xaarandi li fi xewoon ci mois de mars amaat fii muy fitna yooyu ndax situation bu mel nii la maanaam situation politico-judiciaire. waaw as euh, soxna naata loolu day firndeel rek ne ñun suñu démocratie bi dafa am problème fii ci Sénégal c'est vrai que ñi ngi am ay alternance yenn saa yi ñu changé ay njiitu boo xoolee les pratiques. jugee goon fii parce que boo xoolee une presse bi yàgg nañ fay dégg yu mel ni bu amee bis ba mu tombé ñu ne jour tel de tous les dangers tey mercredi de tombé bu tolloon àjjuma nga ne vendredi tous les dangers. titre presse bi sax changé wut li koy wane mooy li nga xamante ni moom la ñuy dund fii ci Sénégal soppeeku wut acteurs yi ku ci nekk maanaam am na benn xeetu irresponsabilité boo xamante ni nemmeeku nañ ko ci suñu way politique yi muy ci ñi njiite ba ci ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci kujje gi moom yaa koy défendre en fonction euh, boo jëlee benn kaaw tey kii défendre régime bi kan la euh, Yankhoba Diattara lañ fi gis xam nga loolu mën nga téye sa gémmiñ ne ba tey fa mu nekk ca pouvoir nekk ci kujje gi te moom it am na ay jamono ba mu nekk ci kujje gi dafa mel ni moom ñoo bokkoon gis gi day wane kon ni ko waxee rek ñun on a une démocratie très particulière fii ci Sénégal en dépit des alternances yi nga xamante ne ñi ngi ko fi nemmeeku ba tax na kon euh, li ñu xaar nag ci wàllu yoon mooy justice bi pression bi di ko nit teg wala ñàkk kóolute gi mhm. yooyu aussi li ko waral mooy des fois jàpp ni dañ koy instrumentaliser wala deful liggéeyam na mu waree moom moo waral yi ni mel tey boo boo xëysee yow ñun ñëpp ku ne xëy si na yi mhm. gis nga gendarmerie wala police positionné wu leen ne Dakar dafa su Barthélémy Dias rek. coono yi ngi ciy daj ñëw di wiiri boo waree jaar ni ñu naan la wiiri ndax dañ koy teel a tëj pour bañ xañ euh, attroupement yi nit ñi di ñëw taxaw da nga dul sax dund sax may nit dugg fa xam nga mm-hmm. demoon ba nit ñi tiit fii lu nekk fukki nit ak juróom daal ci ñàkk seen bakkan kilifa diine yi daal ciy juug mm-hmm. wax ci et mais mu mel ni kon ñun dañuy teg benn pas avant teg ñaari en arrière mel ni kon on n'avance pas fii ci Sénégal parce que situation bi ñu dund tey on l'a vécu ces vingt dernières années mel ni kon y a beaucoup encore à li am taw solo rek mooy Sénégal nañ fàttaliku ne soxna naata lay xew feneen mën na fay xew chaque fois nag danaan sànn on arrive qu'aux autres ay Guinée et mais defuñ gënuñ leen gënuñ leen gënuñ ñoo responsable parce que ñun suñu way politique yi rawatina les acteurs ni ñuy dundee dafa mel ni on joue avec le feu. effectivement on joue avec le feu Malick Thiandoum dafa mel ni situation bi sax mën nañ koo méngaleeg li ñuy duppee xalum ndéef daanaka euh, mën ngaa gis nii rek ne daa fay waaye boo dugalee sa loxo ci biir moom boo mayul daa nga lakk. waaw euh, euh, moment bu nekk rek mën na mën na tàkk jëppit mhm. moo tax jamono ji fi mu nekk nii ñu ngi mel ni ku toog ci nen. Euh, ndax kenn xamagul tey nan lay demee mais euh, li nga laaj léegi Chérif euh, mooy ndax mun nañu xaar li xewoon mois de mars xewaat man je réponds tout de suite non. Mhm. li xewoon mois de mars mënul xewaat ci procès Barthélémy Dias tey xëy na mun na am ay velléité de résistance mun na am tuuti fitna mais fitna ju yem ci dayo bi amoon mois de mars ba nit ñu bari ñàkk ci seen bàkkan mhm. je pense que mënatul am parce que nit ñi aussi def nañu benn prise de conscience ci ni que euh, politique yi dañuy utiliser tey askan bi euh, di leen xeexloo te seen i njaboot duñu xeex seen i duñu xeex seeni i baay duñu xeex seen i doom duñu xeex est-ce que man doomu baadoole bi man maa mhm. war a dem xeex ji ba pare après da ngay perte parce que tey ñi deewoon ci mois de mars ba léegi seeni waajur ñu ngi jooy. ba léegi ndàmpaay ba ñu leen doon wax est-ce que jot nañ ci et cetera maintenant la justice quelque que soit la pression qu'il y justice dafa war a def liggéeyam ak tranquillité Bart bu ñu ko waree àtte nañ ko àtte. bu fekkee ni tey dañu war a renvoyer procès bi parce que sur le plan judiciaire am na élément yëpp dajewul pour ñu àtte ko tey loolu aussi la justice fera son mais mm-hmm. maintenant li ci des moo di ne tey jii mbir mi yàgg na fukki at am Barth indi Barth am Ndiaga Diouf indi Ndiaga Diouf dafa doy. mais c'est le moment d'en finir quoi. c'est le dafa doy sëkk ak barke ñu jàll ci leneen réew mi tal nañu leneen lu dul fitna parce que lu dul jàmm jàmm moo ko gën te ay du yem ci bopp borom. Mm. réew mi tey toll nañu fu nga xam ni euh, jafe-jafe yi tar na tar boo euh, tal nañu leneen lu dul xeex. Mm. xeex bi ñuy xeex mooy lan wutub dépense ut loo lekk ut loo dundee ut loo fayee luyaas. problème yi ñu ngi fii donc du ni que problème Barthélémy Diaz moom moo war a tenir en haleine tout un peuple. Mm-hmm. Euh, Marcel dafa am kàddu. juste pour préciser rek. que mm-hmm. Barthélémy comme ni ñu ko gisee dafa wax ne ne que dina ànd ak njabootam donc juste pour euh, préciser côté boobu comme na ne amul benn politicien boo xamante ne dinañ mettre en en avant seen njaboot ak yooyu. pour préciser ne voilà. pour une fois au moins il a dit que cette fois-ci il. que dina yóbbaale yi dinañ ñëw. wayten si wayten si wayten si merci beaucoup jërëjëf ci jàngat bi ak Chérif Dia dañuy jàll ci kanam tuuti ci beneen euh, rubrique muy un jour au Sénégal un jour dans le monde muy éphéméride yi.